sëriñ Assane ñu ngi lay siyaré bu baax di jiital ci nuyo bi sëriñ Mountakha Mbacke Khalif Sall des Mouride Yalla ko fi Yalla yagal te wiral ko ta katanal ko ndax limi yene lepp ci l'islam ci aduna bi Yalla defal ko ko nam ko bëggee tan and ko mom li ñu leen jox tay ba tax ngeen ñew ci suñu kër gi li ëpp ci njaboot ak Mor ak sëñ Malik ñi ngi tok ñi ñewutit joxe nañ seen kàddu ne ànd ñoom ñun ci jataay bi nuyu leen ci turu sëñ Murtada si ma nga mbaabaan ak sëñ Mor mi nga xam ne mooy sëñ Mor si xalifa sëñ Mor nekk gasaan Tuubaa gasaan muy genn kàddu rek ñun ñëpp ñu bokk ko waaye man ma di ko wax lii ngeen sumb nag ci muy ndigal loo xam ne yàgg naa jógee ci kër sëñ Tuubaa dugg kër maam Cheikh duñu wax loolu moom moo ñu mag man damaa wax sax ni moom ak sunuy baay ndax diggante maam seex la ak Sëñ Touba te lépp ndigal lu mos a jógee kër Sëñ Touba dugg kër maam Cheikh mosta booy na ko Sëñ Touba bëggee rek noonu la koy amee ku fi mos a toogal Sëñ Touba ak ku fi mos toogal maam Cheikh loolu rek ca nga sosu ba bisa tey bii kon nag yéen amu leen liggéey amu leen ko yéen amu leen liggéey yéen bay faa yii amul leen liggéey ndax da ngeen jaayante te jaayante ga la tàmbalee ci maam ba léegi. dara yàquwu ci kon nag ndigal lii ñëw na fii tey liñ fas yéene ñun daañu ko ànd ak yéen ñu ci séddee na ñun mooy ciy suñu cir daañu ko ànd ak yéen ba mu jeex kon yéen lii mooy seen doono tey jii xam naa ni suñ bi moom li mu santaane incha allah ni mu ko bëggee dina ko naamee ñun nag njabootu sëñ ma Simal li ci fas yéene mooy ànd ko yéen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk yi taalibe yi ñu ngi leen di baax. jëlin ci am baax jëlin leen nuyu ci kaddu sëñ Badar bi nga xamne moy khalifa xalifa sëriñ Abdoulaye Diané sëñ Badar ak ay doomam ak ay taalibe ñom ñëpp ñi nga andando nek ci gënaaw ndigalu sëriñ bi sëñ Badar ñuy xamle ne moom njaboot kep am nañ pas-pas and ak yeen ci liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee di ñaan ci barkeb sëñ Touba suñ borom yàggal fi sëñ Muntaxa yàggal fi itam xalifa maam si Ibrahima Fall di si am ni Modou Mbenda mu yàgg jëlee ndigal ci sëriñ Muntaxa yàgg koo jotale ci njabootu sëñ Touba gi baag si ci kër sëñ Abdoulaye Diané gii gii kër nag kër sëñ Touba la waaye itam kërum ndigal la maam si Ibrahima Fall daana wax ne sëñ Abdoulaye Diané daa yor ñooñ ma yor kon nag ndigal lu bàyyi ko ci kër sëñ Modou Moustapha kër sëñ Touba jaar kër maam si Ibrahima Fall ñëw kër sëñ Abdoulaye sëñ Badar nee na nangu na ndigal li moo ko jëlee ci moom ndigal sëñ Badar nee na nangu na ndigal loolu fas ko yéene ànd ak yéen moo koy jëlee ndigal ci moom